asalaamualeykum mbokku internetu Sénégal set ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal ci seen teewaay ak ànd bi ngeen di ànd ak Petrotim Monde en collaboration avec Sénégal set ñu ñëwaat tey di leen proposé benn live bi nga xam ni ñi ngi ko tuddee l'affaire Tullow Oil Baba dara brise le silence kan mooy Baba Aydara Baba dara nekk na journaliste sénégalais boo xam ni basé aux États-Unis di journaliste d'investigation may fàttali internautes yi ni li ñu jot a xam dans le dossier Petrotim ak Frank Timis ay dara boobu moo ñu ko xamal fan yee ñu génn dafa am benn journaliste anglaise bu tudd Michel Marcel bi nga xam ni ci site BBC British Broadcasting Corporation di média britannique bi ëpp doole ci àdduna bi pour ne pas dire média européen bi ëpp doole ci àdduna bi ci seen site journaliste anglaise boobu daf ci bind ay bind ci dossier Tullow Oil Euh, ba mu yëkkati ay coow tungu ne nag du teew ñuy nataal kon damay wax rek régie bi ñu indil ma Baba Aydara à l'écran pour ñu tam waxtaan bi asalaamaaleykum Baba. maaleykum salaam Cheikh Saad Bou comment vas-tu. Baba ñu ngi lay nuyu di la ziar euh, di la massaw rey fa ay nit ñu bari euh, baaba dama bëgg d'abord nga wax ñu Tullow Oil en tant que compagnie Tullow Oil lan la fan lañu ñu nekk ak ci lan la ñuy yëngu Cheikh Saabu yaa ngi yaa ngi coupé euh, allo baaba baaba est-ce que vous ma recevez. dégg maa ngi lay dégg. maa ngi lay dégg. man ni yow mi nga xam ni journaliste d'investigation nga basé aux États-Unis dañu bëggoon nga defal ñu taarixu Tullow Oil ak fan lañu jaar ba yegg si Sénégal ndax jàpp nañ ni que ci journaliste sénégalais yiy wax ci affaire pétrole yépp yow sa xam-xam ràññee nañ ko nangul nañ la ko. waaw maa ngi Tullow uh, benn compagnie uh, oil la mm-hmm. di exploiter pétrole ak gaz mm-hmm. uh, ñi ngi ko créé ci mm-hmm. am bopp bi ak kii bi ni muy doxee mu ngi foofu ca Angleterre ca Londres activité yu mu amee nag euh, Africa mhm. ci jamono bi bi ci yi ci gën a mag mu ngi ci euh, euh, yu mu amee ci àdduna bi nekk na Afrique ak South America nekkoon na Sénégal aussi léegi mu ngi Ghana Kenya Uganda mhm. ak fi nga xam ni ki jamono bi mhm. nekk na dëkk bi nga xam ni luñ fa gis ci pétrole moo éclaboussé le monde du gaz muy Guyana euh, muy British Guyana du du lu bees Sénégal am Tullow oil bi mu nekkee Sénégal yàgg na nekkoon na di exploiter gaz foofu ci Sénégal mm-hmm. at yi Abdoulaye Wade di ñëw ak yooyu juste nañuy dem euh, ñi sëkk seen teen yi euh, dem nag euh, gën a tas ci biir Afrique alo waaw Baba fan yee ci ginnaaw gis nañu benn journaliste anglaise Michel Madsen est-ce que Michel Madsen boobu ak Michel Damsen bi fi génne woon dossier Tullow Oil période élection yi est-ce que benn nit ki la waaw ci loolu lay lay liggéey yaakaar naa li indi li indi panique bi yëpp mhm. ak euh, coow li yëpp mhm. foofu rek la basé wu est-ce que kon yow jàpp nga ni dafa am coow seen waaw jàpp naa ni am na ah bien sûr am na coow yow sa bopp wax nga ko ci élection yi coow lu mu indi mhm. parce um, que Michel Damsen mm-hmm. c'est-à-dire que uh, am na lu fi génnoon mm-hmm. léegi ndegam Michel Damsen boobu moom mooy Michel Marsen sob investigation mm-hmm. investigation bu yàgg la depuis depuis tu peux dire que ni ëpp na at di dem Ah, donc mystère boobu ci lay liggéey pour percer ko est-ce que Michel léegi Baba ñi ngi à l'écran ak sa benn naataangoo bu tudd Cheikh antasek Seck Cheikh Anta Seck journaliste la euh, ñëpp xam ko Cheikh Anta Seck moom tamit mi ngi doon def ay gëstu ci li nga xam ni mooy Euh, Michel Matsène boobu ak dossier Tullow Oil euh, Cheikh Anta ñi ngi lay dalal di la wax euh, dalal ak jàmm. Cheikh Sadibou jërëjëf. Mhm. maa ngi nuyu ñëpp ñi seen Sénégal 7 di nuyu également sama frère Baba Aydara. Mhm. Cheikh Anta maa ngi Cheikh Anta dossier bi nga xam ni tey moo indi coow li Tullow Oil. Michel sen implication BBC wala BP ak média britannique gi pression bi ñu nekk di mettre sur le gouvernement sénégalais yow say gëstu fan la la yóbbu. waaw euh, merci Cheikh Sadibou bala ma bala maa wax tax samay gëstu fan la ma yóbbu mhm. il faut ma rappeler que nii comme Baba ni mu ko waxee coowu Tullow Oil. dafa am jax-jaxal bu mu indi woon ci campagne électorale bi laay wax ci Ousmane Sonko li mu doon liggéey parce que dafa fekk Ousmane Sonko nekk en pleine campagne ñu ñëw wax ay wax yu nga xam ni c'était peut-être pour jaxase xel yi pour wax ni Ousmane Sonko n'est pas crédible pour mettre ko en mal peut-être avec les populations avec ñi nga xam ni ñoom la waroon dagaan seen i seen i kàddu boo boo seetloo première fois bu ma ci intervenir maa ngi naan ils ont plus ou moins ralenti la campagne mais li ci gën a graaw moom mooy le complot qu'on a voulu mettre dans le dos de de de de, de Baba Aydara loolu moo waraloon premier poste que j'ai fait sur la question après loolu nag ma dem déglu ji li nga xam ne moom mooy audio bi nga xam ni moom la Michel Madsen def mhm. mais audio bi lim ciy wax. ak li nga xam ni moom lañ def transcription ci situ BBC génne ko dafa dafa mel ni géej gi nga tànk ci patu ndaar loolu xam naa baaba dina ko dina ko dina ko confirmer léegi nag man dama ni ñoom nee nañu numéro baaba ay dara la ñu gis ci dossier bi man leen yéen bu fekkee numéro baaba ay dara ngeen gis surtout ndaw soosu nga xam ni yàggoon naa liggéey ak Baba Aydara ndaw soosu pour man soxlawul woon muy dem ba Ghana wala muy ñëw ba Sénégal sax di laaj Cheikh Yérim sekk parce que interrogé na Cheikh Yérim Seck ba Cheikh Yérim Seck ni ko ce n'est pas à toi de faire dossier d'ailleurs man question yi ma koy interpellé wax naa ko ko mu dem interroger également Ousmane Sonko def ci biir photo yoo xam ne mu ngi biir assemblée nationale sax. pour wane ni ñëwoon na Sénégal wala def na liggéeyam affaire yooyu noonu alors que c'était pas le plus important moom mu ni xam na Baba Aydara bu yàgg te li def tilt sama xel moom mooy man bi ma jógee ni maa ngi def enquête bi di interpeller Baba Aydara par par messenger damaa pare di ko yónnee message ci numéro bi nga xam ne moom laa yoroon muy numéro ñoom bi ñu incriminé woon mais bi ma ci envoyé message ki ma tontu dani ma yéen a may sonal bàyyi leen message yi ngeen may envoyé mm-hmm. ma ne ko c'est pas Baba Aïdara tontuwu ma faaleetu ma mm-hmm. ci la ma Baba yonnee moom numéro bi mu yor nii ma ne non comment est-ce possible que la dame la soit une amie de Baba Aïdara ñoom ñaar ñoo xamante bu yàgg mm-hmm. après la Baba confirmé que ni c'était avant 2012 sax xaw ma depuis 2012. te man mi nga xam ne barki démb peut-être ci entre euh, confrères la ñuy envoyé message yeeg yooyu noonu ci laa enregistré numéro baaba Aydara bi nga xam ne moom lañ incriminé man ma am ko te ndaw si nekk ak moom depuis 2012 amul numéro boobu mm-hmm. mu nekk affaire bu day waar ci sama xel nag ñoom ma interpellé leen mm-hmm. j'ai envoyé des messages à la dame pour moom wax ma mm-hmm. loolu nan la mën a amee j'ai envoye des messages à BBC également pour ñoom ñu expliquer ma pourquoi ñu jëli un journaliste d'investigation pour mu def le travail un un freelance boobu un freelance alors que pour le dossier BP BP ñoom dañoo yónni seen reporter mu def def ko boo seetloo bi baaba di def démb euh, live am bi maa ngi posté naa ko Baba yow yaa ngi spoilé Sénégalais ci liggéey bi may def parce que j'ai comme j'ai entamé le travail mhm. mais sama élément de réponse yu bëri da ngaa commencé di ko génn fii ba xam naa dina bind sax ñu ni daa dem copier la Baba Aïda doon wax alors que man sama jëm bopp wax ak naa Flora Carmichael boobu nekk BBC mhm. et j'ai également envoyé des message à Michel Matsen mhm. mais li gën a garaaw Cheikh Sadi bi ci affaire boobu noonu juste pour ma terminer ci présentation bi mooy ndaw si dans le vocal il dit elle dit clairement moom wóoru ko sax ba xam Michel Damsen boobu noonu def defoon article bi sur euh, Tullow identité am la jël wóoru ko peut-être c'est parce que gars dañ ko interpellé parce que dañoo Damsen dañoo tàppe Damsen gisuñu message ñu ne peut-être Madsen bi moo gën a jigee kon dañoo juum ci écriture bi wala dara moo tax mhm. mais même moom elle reconnaît dans le texte elle dit almost Michel Madsen almost maanaam moom anagramme bi nga xam ne almost moom mooy presque ci anglais yow dégg nga anglais maanaam moom dafay dafa ragal ni anagramme turam ci la kooku joué dam seen boobu noonu ba tax mu génne article boobu noonu mu war a incriminer Ousmane Sonko mais di renvoyer à BBC ñun nag xam nañ tubaab bi nan la ñuy doxee bu fekkee da ngaa toll ci almost maanaam presque sama tur la mhm. mais tey jii su fekkee nit dafa bind Cheikh Sadibou Pédio mhm. saadi bu Diop xëy daan ni tur bi dafa jege sama tur damay dem porter ci plainte wala damay dem enquête mhm. doo porter plainte police du la faale sax parce que dañ naan la kii Pédio la yow Diop nga bàyyi ba lijjanti ban xam ne ba xam loolu laan déet loolu nag ci la nekk ni di di di di di gëstu moom nag ñu ko envoyé message danañu yow Cheikh Anta wër naa Sénégal sama contact yi fan mais xamuñu journaliste bu tudd Cheikh Anta mhm. affaire bu ma affaire bu ma affaire bu ma jaaxal nag mu ni contact am yépp Sénégal nee na xamuñu journaliste bu tudd Cheikh Anta ma jëlaat samay photo mhm. Mhm. yónnee ko ni ko maa ngi nii laajte waat na sa contact yooyu ni leen kii ancien de Sud Quotidien la ancien de D-Média la la tribune au passage mooy nuyu Bougane Gueye Dany ancien de réussir magazine bi marche feu Baye Dame Wade yoroon mhm. ancien de Le Monde à Dakar site bu nga xam ni Ndiaw Fall moom moo ko yoroon Ndiaw Fall moom xam naa ni bootul siiw na c'est un jeune euh, politique mhm. ba ma fa jógee man ma créer sama structure bopp tudde ko torche du monde mhm. avec comme slogan shed light on facts dama ko bañ ba en anglais laa ko def faire jaillir la lumière sur les faits. si loolu nag laa nekk. Mhm.